police divisionnaire Thiendella Fall bokk na ci gestion question électorale bi ci Sénégal depuis atub 2002 mu nekk spécialiste ci question électorale yi nekkoon na directeur ci opération électorale diggante 2003 jàpp 2011 laata muy nekk directeur général des élections ci atub 2011 nekkoon na itam conseiller ci département chargé des questions électorales auprès du ministre de l'intérieur la Fall organisé na ay jongante yu bëri fii ci réewum Sénégal bokk na ci jongante présidentielle yu atub 2007 2008 2012 ak 2019 waaye itam ay élections législatives yu ci mel ni que 2007 ak 2012 2017 ak 2022 mu nekk ab expert électoral def na ay opération yu bëri ngir amal ay coppité ci fichier électorale bi fii ci réewum Sénégal waaye itam daa dinay coordonné ak defaraat ay fichiers électoraux yu bëri ci yeneen réew rawatina fii ci Afrique directeur général des élections di Thiendella falle def na itam ay mission yu bëri ci wàllu évaluation di càmbar ci wàllu élection ci ay réew yu bëri teewal fa organisation internationale de la francophonie walla kuréel bi di boot réew yu Afrique sawjant di CEDEAO ñu faloon ko ci bopp réseau de compétences électorales bu francophonie ci at bu 2021 ci diirub ñaari at moom Thiendella la Fall daan nañ koy falaat ci boppu kuréel bile ci mars bu at bu 2023